الكريم ووجود الانتقام ورجل إذا السماء انشقت كآية ذكري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk ñu ngi yeesalaat sant suñu borom ñu ngi wërsëgal ñuy dund ci waxtu mag wi muy waxtu weeru koor te ay gis yu néew des ci mu wërsëgal ñu ñu ali cib néegam wërsëgal ñu ñu ci ab téere bi ka jàng loolu di ay gëneel yu mu tegale ci ñun yàlla yàlla nangoon ñu lépp luñ tey def kon incha allah ñu jël suñu ay jëkk yi suratu inshaq
bis dañ koy sàllal ñareet wa alqat ma fiha wa taxallat mu sànni lépp lu nekkoon ci biiram doon loo xam ne lu wéet la ay lu vidd la dara newu ci kër wa azinat li rabbiha mu daal di déglu ñeel boromam wa xuqat te loolu doon na loo xam ne lu yey la ci moom yaa ayuha al insaan ay yow doomu aadama innaka kaadixun ila rabbika kadxan yaa ngi kër këri di sonn jëm ca sa boroom ak coono fa mulaaqiihi waaye danga doon koo xam ni ku ñuy dajale la ak sa boroom boobee ak yi daje ngay daje ak yi daje moom ngay doon fa amma man uutiya kitaabahu bi yamini koo xam ne jot na téeréem ca lay dooram fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ku mel ni day des na ko réglé ay mbiram réglé boo xam ne bu yomb lay doon wa yanqalibu ila ahlihi masruura bu ko defee mu daal di dëpp daal di jëm ca njabootam nga ànd ak kontante wa amma man uutiya kitaabahu waraa dahri waaye koo xam ne daa jël ab téeréem te la nga xam ne mooy ga ca gannaawu gannaawam ga ñu nan su féete ca gannaawam ga wara moom ci gannaaw zëhri yi nag mooy gannaawu boppam fa sawfa yad'u subura ku mel noonu day xeesanaawoo alkaangi ci kawam wa yasla saira daa di doon koo xam ni kuy tabbi ji la ca safara sair innahu kaana fi ahlihi masrura ndax moom kat daa nekkoon ca njabootam nga nekk aji kuy loolu kuy fay dégg innahu danna an lan yaquur moom jortoon na ni du dellu mukk du dellu mukk ci yàlla bala hakay inna rabbahu kaana bihi basira sa borom yàlla day nekkoon na koo xam ne ku ko doon gis la ay ku dara umpul woon ci moom di ngi noonu bokk kon na suñu borom day wax ni jafe-jafe yi nar a am disipé jàngoon nañ ci lu mel noonu démb mooy ilassamahum fatarat amma fii mu ni inshaqat ay xar teqalikoo su boobaa lay taxaw déggal boroomam ay déglu dégle boroomam te la boroom ba di sant ci moom keroog mooy borom bi dana ko lekk safaari ay biddiwam ubbi ay buntam la ko yàlla sant yépp mu def mbokk muy wane ne asamaan yi ay mbindaafon lañu yoo xam ne dañoo am yëg yëg di yëg ndigli borom bi di ko jëfee moo tax yàlla ba ko bindee moom suuf daf ne leen itiyaa taw al aw karha kaay leen déggal ma mu neex leen ak bu leen naqari ñu ne ko atay naa soo yi yàlla dikkal nañu la doon ak yi coobare loolu sant ñu ne borom boobu nag ne keroog it suuf des na ko tàllal bu ñu ko ñaddee maasalay montaañam lépp loo xam ne nekkoon na ci biiram dana ko gëq keroog génne ko te la ca gën a am solo muy lépp loo xam ne nekkoon na ca ci ay nit ci jinne ay baalu na ay lu mën a doon lépp dina ko génn moom it mu daal di déglu ndigali boroomam ay sama boroom loo ma sant tey ma def te loolu doon na lu yëy ci moom wa xat yey na ci moom loolu mbokk aay yi ñëw dilit boo koy jàng asamaan ak riyaa yëpp ak yaatuwaayam suuf bi nga xam ne noonu la ëmb ñoom day dañuy dégg ndigali borom bi duñ ko moy ci dara te looloo yëy ci ñoom yow doomu aadama moom lan moo yëy ci yow wallahi yow doomu aadama dara yëyul ci yow lu dul nga dégg sa ndigali borom jëfe sa ndigali borom loolu dong mooy la yëy ci yow moo tax suñu borom woo ko ay yow doomu aadama xamal ne yaa ngi kër këri jëm ci sa borom mbokk jullit na doon suñu borom mu ne inna sa'yakum la shatta doomu aadama bu ne mi ngi xëy am na ñuy xëy ci lu neex yàlla am na ñu xëy ci lu naqari yàlla waaye seen programme benn la dañuy jeexal benn jour jeexal benn mois jeexal benn année jeexal seen dund jeex na seen temps bi yoroon ci kaw suuf jeex na ñoom ñëpp ñu dellu ca fa nga xam ne fa lañ jóge woon nga doon ci dafa nekkoon commerçant ministre expert lu mu mën a doon seen retour yëpp benn la mooy ay néew la ñu doon ay koor yu ñu delloo borom bi kon ñun yaay ci kër kër da nga doon koo xam ne kuy dajeeg sa borom ma te bis boo dajeeg sa borom keroog ngay dajeeg résultat kër kër boobu nga doon def you know keroog nag lañ lay won ba nga majeur ba béree dee lépp loo doon kër kër yi la ca baaxoon yàlla gërëm ko fay gaa ngi nii la ci dëngoon yàlla gërëmu ko fay gaa ngi nii résultat final yooyu suñu borom ci ay téere la koy def ñu noonu ci ay téere la koy def comme tey jii da ngay gis lu bëri doomu aadama yi ay ah diplôme lañ leen di jox wala ay visa yi ngay déposé buñ lay jox sa passeport nit ñi dañ koy joxaloo wala man tey si ñuy jëlee visa yi da ngay gis loo xam ne bi ñu ko joxee visa bu ubbi ñu ne ko ok may nañ ko day kontaan amma ci ñu refusé xol ba naqari téere yi yëpp yowmal qiyaama noonu lay def bu sa téere jëf baaxee malaaka yi la yàllay booleel dañ ñëw jàkkaarloog yow tagg la félicité la jox la sa téere ci sa day door su boobaa suñu borom nee na waa ji day daal di jëppaar jëm sa njabootam nga doon koo xam ne kuy kontaan la te jàngoon nañ ko ci sàrmi ci gannaaw alxaq هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية كم من نور دنا ولا رزقتام كي لا تيكف من أجل الجم ينون أجل الجم budee ne nag ki nga xam ne kër këram ci adduna yëpp fàtte woon na daje boobu ba lam yóbbu àllaaxira baaxul ba ay résultat bi nañ bind ko ci téere la malaaka yi daal ñëw doxa ko gannaaw lem loxo càmmoñam daal di na ko téer sa téere ba borom bi subhanahu wa taala nee na ku mel nii buñ ko joxee téeréem dana woo alkaange alkaange boobu jàng nañ ko ci gannaaw te xaq yaa laytaha kaanat alqaadiya ay waay ak a neexoon man ma dee woon dee goo xam ne dekki amu ca yaa laytani kuntu turaaba ay waay ak neexoon ma nekk la nga xam ne poussière la ñu noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax dana woo alkaange ci moom te mooy dee moo koy gënal lam nar a fekki ndax foofu mu nar a jëm dee amu ko mbugal la mu sax dak moo tax borom bi ne dañ koy daal di yóbbu moom mu tabbal tabbi te la nga xam ne mooy safara saxiir li waral li mooy bi mu nekkee ci àdduna dafa nekkoon ci njabootam ci mbégam ak kontaan kese lan moo ko itteeloon ci njabootam lu koy bégal kese xalaatu ca woon luy bégal boroomam te loolu mbokk bi mu nekk safaanu la nga xam ne jullit la nga jàng suratu Tuur sunu borom ñu ngi nettali ne jullit ñi bu ñu nekkee ci biir àdduna lu ñuy wax inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin ñun day nekkoon noonu ci suñu njaboot ga doon ñoo xam ni dañu ragaloon seen borom mushfiqun di ragal suñu borom jalla wa ala te mooy njaboot bi duñ ci nekkee yaa ñu xool ndax lii neex na yàlla ndax lii neexul yàlla ndax lii may def lii sama njaboot bi ci def loolu yi tiital la ragal loola borom bi nee na nag yawmal qiyaama ku mel noonu mooy dellu ca ahlihi masrura am naa ci nekkoon ci njabootam àdduna bànneexam ak bànneexu njabootam danga ko yitteel suñ borom nee na ku mel ni mooy dellu di woo suruura alkaange te sawara mooy nar a nekk wàcc waayam borom bi nee na li waral li lépp jàppul woon ne danañ ko delloo ci yàlla dana doon kuy jëllis ci yàlla te loolu mbokk ñu ne te jur bi ci war a bàyyi xel dañu nekk day ko mel ni imam Cheikh am nee na baat bi benn xale waa Makka moo ko ko jàngal ndax xam ngeen alquran ci langue Quraysh la wàcc ci langue waa Makka nee na dafa gis xale ñuy jël benn ak wëñëw takk ci benn picc bi mu takkee picc ba pare daal di bàyyi picc bi picc bi naaw xale bi ne hee zan na an lañ yaxu mu ne xool jàpp ne la du dégg ba mu naawee bu wëñ nga jeex rek mu daal di dëkk am déet loolu kon mu ne ah lii la yàlla yi wax te mooy kon doomu aadama bu nekk xale boobu kattan gi mu am ci piccam ba takk ci wëñam ba nga xamee ni picc bi lu naaw naaw du passé wëñ bi doomu aadama bu mu mën a doon it yàlla tënk na la tënk boo xam ni dund gëm dogal ci yow bés bu jeexee nga dellu ci sa borom loolu mën na nekk dix ans cent ans yàlla xam heure bu jeexee nga dellu ci sa borom zon na am lañ la suñu borom nag mu ne déedéet xamul ne yàlla mi boromam day nekkoon na koo xam ne ku ko doon gis la ay ku xamoon la nga xam ne mooy ay ay ay ay ay mbiram la di ko gis nga noonu. moom man dama koy gisoon fii ci moom. ana Ali Ali mais gis nga Ali yaa ci nii. moom it dafa dafa ñaan.
فلا أقسم بالشفق والذي وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يقولون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
suñu borom mu ne fala uqsimu bishafaq fala déedéet uqsimu bishafaq maa ngi waat ci shafaq shafaq bu jant bi sowee xonq xonq boobu muy bàyyi ci sow bi dañuy tudde shafaq wallayli wa ma wasaq maa ngi waat ci guddi ak la muy dajale wal qamari iza tasaq di wàcc weer wi jamono ba muy mat sëkk la tarkabunna tabaqan an tabaq da ngeen yéeg ci étape ci gannaaw étape ay ci melokaan gannaaw melokaan fama la lahum molal moo leen ñeel laa yuminuun ba duñu gëm wa ida quri'a alayhim alquran suñu jàngi ñoom alquran laa yasjuduun duñu sujud bal alladina kafaru yukadibuun la am kay mooy yéeféeri dañoo nekk aji ñuy weddi wallahu aalamu bima yuquun waaye yàlla moo gën a xam lépp loo xam ne ñu ngi koy ëmb di ko nëbb fa bashiruhum bi azabin alim dégal leen ci mbugal moo xam ne mu tar la illa alladina amanu wa amilu salihat ba mu des nag ñooñu nga xam ne dañoo gëm te jëfoon jëf yu yiw ya ñoom moom lahum ajrun gayru mamnun dana leen ñeel fay boo xam ne du dog ba faw mi ngi noonu mbokk suñu boroom mooy waat ci ay mbindaa sonam ngir attirer attention doomu aadama yi mu woor ci safar jant bi mi ngi fi fenk ñu gis ko muy dem dem ba mujj bu daal di soo buy soo dañuy gis bu paree foofu mu sowee ci soow yépp day xonq loolu di kàttanu borom bi bi ñuy fenk ci fajar fii dafa weexoon moo la borom bi dana wax naan xëytul abyad min al xëytul aswad mi ngi weexal dem fenk bi génne fajaram amma bi mu demee fam bàyyi ma nga bàyyi ma nga xam borom bi waat ci loolu te moom moo kattanu fenkal jant ak sowal ko waaye mu waati ci guddi guddi doon kawtéefu borom bi boo xam ne xéewal la guñ defal jaan yi mais su ma ko bàyyi woon bëccëg ba ilaa yéni diin kan moo leen di indil guddi kon xéewal la yàlla indi guddi nattale ko nu mu ko neex guddi gi may Sénégal bokkul ak bi may Italie bokkul ak ba may Amérique ñu ngi noonu mu waate ci li ñuy dajale guddi mooy dajale famille guddi mooy dajale la nga xam ne njaa àll yi nga xam ne dañuy far ba tëg guddi la ñuy dajale fa ñuy làqu ila axir mooy lépp lu ñuy dajale waaye mu biin ci weer yi jamono bi muy mat sëkk ci la nga xam ne guddi quinze da nga xam ne léegi mat na sëkk leeral asamaan bi loolu di kaw téeg wante ne ni gone ak Ndakaaru mënu ko apprécier wala nga ko mënoon apprécier nga nekk foo xam ne courant courant su ne la ay kilomètres da nga gis ne weer wi leen dal na ci kaw asamaan rafet lool taaru lool sàttan boobu ñu ko nekk mooy suñu borom jënd wa ala borom boobu nag ne nii jamono bi di soppi ko jant baa ngi fi woon sono guddi nekk fi woon ñëw na weer waa ngi di màgg di màgg ba mag sëkk yéen tamit même chose da ngeen jóge ci xaal ci gannaaw xaal te mbokk doomu aadama suñu borom yàlla mooy dogal ci moom sa biiru yaay ay étape étape nga fa def fokk ma ni ñu lumbu deret mu doxa ak yàq la yàlla génn la nga nekk liir nekk xale nekk waxambaane nekk paa nekk màgget ci dara fi noonu itamit la suñu borom yàlla di nattoo teew lu ko neex léeg-léeg nga wér léeg-léeg nga wéri léeg-léeg mu nattoo lu tukki léeg-léeg mu nattoo la tool léeg-léeg nga nattoo la ak ñàkk léeg-léeg mu nattoo la ak am tabaxan am tabax loo xam ne nii ay étapes lañu doomu aadama di jaar borom boobu nag ne année ba dernière étape ba nag moo ko xam leen ne mooy téere ji aljana yàlla na ko yàlla def suñu dernière étape wala téere ji sawara yàlla na yàlla musal mi ngi noonu bu dee ne rek la nga dégg journal ci yooyu di wax naan dem na ci dernière demeure ay ca këram gu mujj mbokk bàmmeel du kër gu mujj bi bàmmeel étape la ci étape bi mi ngi génnoon si biiru yaay ñëw ko kaw suuf noonu ngay génne kaw sax dem bàmmeel gis na ma sa ñëw nga dem bàmmeel dem génn dem bàmmeel dañ koy ziyaara rek waaye yoon ci xaar mu jaar ci ziyaara ko di loolu lay de wax alhaakum takasur xatta zurtumul maqaabir dañ koy ziyaara jàll rek waaye fañ jëm dëgg dëgg dëgg mooy àllaaxira mooy dernier étape mi ngi noonu borom boobu nag ñun yii firi lu tax ba lu ñu gëm yàlla gannaaw bi leen yàlla wane kaw ci sum ci jaww ji mi ngi noonu wan leen kawteef ci seen bopp ci loo xam ne mënuñu ci dara doomu aadama juddu la yaa ngi nekk liir yaa ngi màgg lu lay màggal xamuloo ko wallahi doomu aadama loolu ma koy màggal xam xoolal doom bi nga yar sa bopp da nga koy gis rek lu muy màgg di dem lu koy màggal xamuloo li ngi noonu jëmb mu di mu daal di commencé sax pikin sax ay weer sax nangam suñu borom yàlla mooy def lu tee ngeen gëm seen borom ne am na kat kàttan ci def ba buñ leen di jàngal alquran lu tey woon ngeen sujud te sujud bi mbokk mooy wommatul yàlla ci sujud loolu lay màndargaal torox loolu yàlla nangul ko moo tax nga bind gën a tedd ci yow mi sa kanam teg ko ci suuf pour wan yàlla na nangul naa la ak lu tey woon ñu wommatul yàlla nangul yàlla waaye suñu borom mu ne yéefér yi dañ dañoo nekk di wet di wet ji lu ñu leen wax ñu weddi ko yàlla nag subhanahu wa taala moo gën a xam lépp lu ñuy ëmb lañu ëmb ci kéeféer am nga côté noonu l'islam la ñuy nëbb ci biir ay maa yusirruuna wa maa yu'linuun te loolu yi da ngay gis ni loolu ñu ëmb yépp yàlla dana ko génne yowmal qiyaama comme ni ñu koy nar a jàngi léegi ci suratu Tawba suñu borom nag mu ne bégal leen ci mbugal mu tar moo xam ne moo leen di xaar yowmal qiyaama te mbokk yéeféere ngoon looloo tax jullit bi ñu ne mukk yéeféer président de milliardaire la maanaam boo jàppee ni kii kat bu dee ci sawara la jëm ku mel noonu abadan doo ko nii fa bashiruhum bi azabin alim borom bi nag ne ñi nga xam ne ñoom bi ñuy kër-kër yi jàng nañu sànq suñu borom mu ne ku nekk kaw ji xel ku nekk yaa ngi kër-kër yi am naa ñi nga xam ne seen kër-kër mooy ñoo gëmul yàlla jëf lu baax buñ ñëwee àjjana fay la boo xam ne du dog ba faw ghayru mamnun te mbokk àjjana du jeex abadan abadan ba faw yàlla na yàlla def ko suñu ñibbi wàcc woon